mboolem kilifa yi nga xam ñoo nekk ci jotaay bi di ci jiital al oustaz Maxtaar Kebe di jéggulu ci fii ñu toog di jéem wax ci kanamu kilifa yi ak sëriñ si mawduu bi comme ni ko Cheikh Omar waxe léegi mooy muaaradatul xadiis wala as sunna bil karim ardun wa naqd mooy féngale gi nga xam nit ñi dañ koy fénqale diggante sunna ak alquran wala nga diggante xadiis ak alquran bu ñu waxee fii xadis sunna lañ ci jublu bu ñu waxee baatu sunna yi xadis lañ ci jublu fenqale alquran ak sunna mooy di gaaral alquran ci sun di gaaral sunna ci alquran maanaam bu xadis yonente bi alayhi salaatu salaam ñëwee ñu ne dañ koy dëppaleek alquran méngale kook alquran gam-gamle gam kook alquran su dëppook alquran ñu jël ko su dëppoowut ak alquran ñu delloo ko waxtaan wi loolu lay gaaral ba noppi boole kook ni ko Cheikh Omar waxe léegi critiqué idée boobu ak wane fu mu bàyyi ko ak borom xam-xame xadis yi ñu koy askane set gi ñu set ci loolu wicc nga xam ne loolu bokkul ci seen mën xaj donte ñu koy wax léeg-léeg ñu indi ay suba te jéem a indi ay misaal ci waxi lenn ci borom xam-xam yi wala lenn ci tasarufaatu saxaaba waaye fi lxaqiqa loolu moom bokkul ci manhajul muhaddisin te mooy ardul qurani aw ardul xadisi ala alqurani alkarim ci tàmbaliment bi dañuy wax ni sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax yu la bu bàyyikoo ca sunu borom tabaraka wa taala borom bi moo wax ni wa ma yantiqu an il hawa in huwa illa waxyun yuxa kon sunna man nekk nek wahyu ba nopi di juyok alquran mi nga xamne wahyu la ñom ñaar min mishkat mishkaatin wahida alquran wahyu la min allah tabaarak wa taala sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nek wahyu min allah tabaarak wa taala kon ta'arud ak finqalo ak contradiction du meuna am mukk digeenti alquran ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lañu jàpp ni ak fenk lola kay day fekk lola da bayiko wul ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam saxul wala mu nek lu sax bayiko ci yonnati bi alayhi salatu wasalam waaye deg deg ka nga xamni moy mooy gëstu mooy am ak gàttañ lu ba xamul naka lañuy bolé naka lañuy ñuy ak ñaari texte yoyu waaye fil haqiqa ci deg deg mom sunna su sax bayiko ci yonnati bi alayhi salatu wasalam du fenkolo du contradiction ak alquran karim sunna dafa nekk tegtal nekk aw lay woo xam ne ku mu agsi ci yow da nga koo war a jël jëfe ko ginnaaw boo xamante ni sax na bàyyi koo ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon sunna du wuuteeg alquran du juyoog moom du fénqaloog moom du def contradiction ak alquran karim li fi nekk kay mooy sunna su ñëwee day ñëw di fedd li ñëw ci alquran karim bëri na ay ndigal ak i tere yu ñëw ci alquran sunna day ñëw di ko fedd li nga xam du ca dolli dara ca la alquran wax waaye de ñëw ko di ko fedd di ko gën a dëgëral walla sunna ñëw di leeral alquran ndax alquran nag bu leen fàtte moom détaillé wul masaa'ili diine ji détaillé ko waaye ay ahkaam amma la jox ay qawaid kulliya ay règle générale la jox yoo xam ni ay tex yaatu yoo xam ni détail ya ñu ngi koy jëlee ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa boo ko jëloon ci julli mathalan القران سنتاني جولي واي فرن فاتيول وقت جولي بن بن فمو تامل اك فمو يام نك لا ني جولي تيكانتلو كو فرن فاتيو كو لول لب سنه يونت بي صلى الله عليه وسلم مكو اندي كون سنه داي نيو دي ليرال القران الكريم فك تكسي بو خامني دا فا نيكون لو ياتو لو ماتال مو نيو جاغلل كو ليلا مو لو خامني القران دا فا نيو بويال ولا مو جويال كو مو نيو wala fekk loo xam ne alquran da koo lëmal li ñoo ibham mu ñëw le ko leeral ko léeg-léeg sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñëw andi ay atte yoo xam ne ci daganal ak ci araamal boo demoon ci alquran doo ko fekk waaye loola waxyu la min allahi tabaraka wa taala wa anzalna ilayka dhikra li tubayina linnaasi ma nuzila ilayhim loolu moo tax suñu borom tabaraka wa taala ni mu wattoo وحي بيغا خاني موي القران الكريم نونيت لوتو وحي بيغا خاني موي سنه يونت بي صلى الله عليه وسلم ندخ بروم خام خامي داني واخني حفظ المبين يستلزم حفظ المبين حفظ المبين حفظ المبين يستلزم حفظ المبين معنى القران موم لا ني ليرال سو فكيه داني كو واتو فاو ني واتو والا ليكوي ليرال تي موي سنه يونت بي عليه الصلاه والسلام تخلول ñu wattu la nga xam ne moom la ñuy leeral bàyyi li koy leeral mooy wattu alxuraan ba nag bàyyi sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu yi moo tax suñu borom tabaraka wa taala tàggat ay borom xam-xam yu ñuy tuddee aljahabidatu nuqaad almuhaddithuun seen dund yépp ñu jeexal ko ci gëstu ak jàngat ak càmbar sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wër mboolem réewi lislaam yi dajale xadiis yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mokkal ko seeni dënd mokkal ko seeni téere ñoŋal ko sàmm ko segg ko ba kenn mënu caa dugal lu ca bokkul waaye kenn mënu cee wàññi lu ca bokk ku ci dugal lu ca bokkul ñu la lii kat bokk ci ku ci lu ca bokk ñu la lii ci la bokk loola ci mbaaxuk suñu borom tabaraka wa taala la ko def moo tax ba suñu jamono tey jii amul kenn koo xam ne mën naa wàññi dara ci sunna waaye amul kenn koo xam ne mën naa yokk dara ci sunna loolu nag luy continuer la ba faw ndax suñu borom tabaaraku wa taala mo garanté wattu téeram bi ak li léral téeram bi te moy sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lol motax bo xolé ba yàlla yónnee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi noni l'islam yi dañu ñu def ay pexe di jema andi ay lënt-lënti sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jema sik sakalo nit ñi ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak i xadiitam waye teewul sunna continuer di gëna tassaro di gëna law ñi nga xamanteni ñoo tënku ci sunna gëna bari borom bi neena inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafizuun suñ borom mo waxal bopam ni mo wàcce alquran mo koy sam te su samme alquran samale sunna yonent bi sallallahu alaihi wasallam ide bobu wala phénomène bobu te moy di jema a sunna ak alquran di jéem a fénqale diggante xadis ak alquran di wax ni xadis bu ñëwee dañ koy gaaral ci alquran bu dëppook moom ñu jël ko bu dëppoowut ak moom ñu bàyyi ko loola lu yàgg la ci jamono yi saxaaba yi feeñoon na waaye ci mujjantalu dunduk saxaaba yi muy alxawaarij mazhab boobu ñi ko jëkk a feeñal mooy alxawaarij ñu bari dañ jàpp ni saxaaba yi dañ ko daan def waaye déedéet am na ay misaal yu ñuy joxe ci Omar ak ci Aïcha daañ ci egsi mais saxaaba yi bokkul woon seen méthode di gaaral sunna ci alquran ngir nangu sunna déedéet waaye loolu xawaari ji ñoo ko ñoo ko indi ñoo créé manhaj boobu kon euh, ànd ak ni suñu borom tabaraka wa taala moo wattu alquran wattu sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam teewul am na ay nit ñoo xamante ne nii am na ñeneen jubluwaay yoo xam ni baaxul seen jubluwaay mooy xeex lislaam néewal dool lislaam jaare ko ci seen référence bi nga xamne moy mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax mo gëna feren fàcce li aju ci mbirum diine l'islam ñi ci gëna bari nak xex xeex dañuy jam sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak di wéradil ngir ni dañoo jàpp ni xadis bi wala xadis yi dafa wuuteeg alquranu karim loolu kuréeli bidaa yi ñoo tàmbali tàmbalee ko ci alxawaarij jaar ci almutazila aljahmiya alshia القرآنيون العصرانيون العقلانيون كوريل يوي نيوم نيوي نيغا خامني نيو فكره بوبي نيغا خامني ولا فينومن بوبي نيغا خامني موي معارضه الحديث بالقران الكريم لولو بيمو فيغني بروم خام خامي تاخاوونج دانيو تي جيل اي ماتواي ليرال ديغات داجي mboolem lënt lënt yi nga xam ni xawaari ji ak njaar seen yoon doon nañ ko indi ngir dëgëral seen xalaat boobu te mooy sunna bu wuuteeg alquran dañ ko war a delloo bokk na ci ñooñu ñu ci jiitu al imam Saïd ibn Jubayr Saïd ibn Jubayr mu ngi faatu ci 94 ci gàddaay gi kon ku yàgg la min kibaari taabiin ci magi taabiina yi ak seeni borom xam-xam la bokk dafa am benn bis mu wax benn xadis yonente bi sallallahu alayhi wa am kenn ci xawaari yi ni ko xadis bii daa wuuteeg alquran ni ko xadis bi daa wuuteeg alquran mun ko yow ma lay wax wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga naan da koy gam-gam leeg alquran naan daa wuuteeg alquran xanaa xamuloo ni alquran jii ngay wax ne daa wuuteeg xadis bi yonent bi mu la ko gën a dégg moo la ko gën a xam loolu it lu am solo la liñ ci jële mooy même borom xam-xam yi bu ñëwee jàpp ni xadis bi daa wuteeg alquran ci xadis bu sax wér bàyyi koo ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni ki ahadis ñëw sahih buxaari sahih muslim moom xelam la war a tuumaal ndax moom moo gën a dégg yonente bi sax sama alquran yonente bi moo gën a dégg ñëpp alquran du wax luy juyoo ak luy contradiction ak luy safaanoonteeg alquran karim kon na tuumaal xelam na tuumaal ak dégg-déggam waaye mu tuumaal waxi yonente bi alayhi salaatu wasalaam na ci ñi nga xam ne amoon nañu ay taxawaay yu am solo ci ñi nga xamni ñoy jema fenkale a alquran sunna al imam shafii ci ay téram yu bari bari al imam ahmad al imam al khattabi qiwam sunna al asbahani ibn abd al bar ibn hazm ibnu taymiya al qayyim ak al imam shatibi ak ñeneen ñu bari bari ci borom xam-xam yi ñoo xamni amon nañ ay taxaway yu am solo ci ñooñi nga xamni ñoy jema fenkale a alquran ak sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam bokk boo ko jullit li doy waar ci mbir mi su fekkonte ni rek noonu lislaam yi ak ñi nga xam dañ leen xam ci inxiraaf dañoo jàdd bàyyi la nga xam ne mooy yoonu alquran sunna yittewuñ xam-xamu xadis kon danger bi dana gën a néew waaye bokk na ci li gën a yokk problème bi mooy ñenn ci bindkat yi nga xam ni dañuy wax dañuy bind ci xam-xamu xadis wala wax ni xëy na dañoo def taxasu ci ilmu xadis ñoom it dañuy faral di andi loolu mooy fenqale alquran ak sunna ba noppi di ko askane borom xam-xami xadis maanaam wax ne muaradatul xadis bil quran loola méthode la boo xam ni borom xam-xamu xadis dañ ci doon dox te nattukaay la bo xamni borom xam-xami hadith dañ ci doon sikoniko di xamni hadith bi sahih wala daif loolu wérul bokku na ci téré yi andi lu mel nonu manhajun naqdi inda al muhaddisin nachatuhu wa taarixuhu تيري بتدو نقد المتن الحديث نقد المتن الحديثي واثره في الحكم على الرواة عند علماء الجرح والتعديل تيري بتدو مقاييس نقد متون السنه منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي في جهود المحدثين او جهود المحدثين في نقد الحديث النبوي الشريف يي اي تيري لو خامني لن سي بند كات ييغا خامني داني بند سي دومينو حديث نيوكو بند ñen ci ñoom saxal ni bokku na ci metatu borom xam-xamu hadith yi di wéradil ab hadith di dello ab hadith ngir ne xadis bi daa juyoog alquraanu karim lolu bala ma ci ñëw damay wax ni lola nekul lu wér borom xam xamu hadith yi ci mutaqaddimuna yi ak mutaakhiruna yi ñoom hadith bu wér ak bu wérul aju ñuko ci mu dëppoog alquran ba mu juyoog moom ndax xam ngeen ni su fekkoonte ci lolu lañ ko acc kon bépp hadis bu ñu nettali rek ne yonte bee ko wax bu ñu jërul sax gëstu càllale ak dara bu ñu xoolee mu dëppoo ak alxuraan ni wér na yonte bi wér na bu ñu xoolee dëppootam moom ñu ni wérul te déet mbir mi demewul noonu gën naa xóot loolu dafa am ay charte yoo xam ni mooy daje ngir hadis bi mën a nekk hadis bu wér la ca jiitu mooy al adala mbooleem ñi nettali hadis bi mbooleem ñi nekk ci chaîne bi ci càllale bi nekk ay nit yu wóor ñu am diine ñu jub ñu maandu ñu ragal yàlla boobu mooy bi ci jiitu waaye doyul de bi topp mooy ab bopp ñooñi nga xam ay nit ñu baax la ñu jub ñu maanu nekk ay mokkalkat su seen xel naqaree mënuñoo mokkal du jël xadis bi ñetteel bi kenn ku nekk déggee na ci sëriñ bi nga xam ni la jëlee xadis bi sëriñ bii bi wax ni moo ko nettali xadis bi jëlee na ko ci moom muy ittisaalu sanad ñetti charte yooyu day dellu ci càllale gi kese bu dajaloo ci càllale gi ñu ne càllale googu wér ñu xoolaat asalaamatu min asuzuz asalaamatu min illati alqaadixa mooy ndax xadis bii raawi bi juumu ci ndax raawi bi lu mu baax baax lu mu mën a mokkal njuumte da koy gaar bu fekkee dafa juum ñu delloo xadis bi moo xam njuumte la ko andi mooy at tafarrud wala al muxaalafa tafarrud mooy wéetoo gu mu wéet ci xadis bi wala muxaalafa mooy dafa wuuteeg ñeneen ñi nga xam ni ñoo ko gën a mën a mokkal xadis gën koo xam xadis bu wuuteeg ñoom xadis boobu wérul lii mooy maayiru naqdi indal muhaddisin amul lu ci doon dolli ko amul lu ci wàññi donte benn boo jël nag am na ay teqantal am na ay faram fàcce am na ay détail waaye bokkul mukk ci manhajul muhaddisiin di gaaral hadis bi ci alquran bu dëppoo moom ñu waaw wér na bu dëppoote moom ñun wérut ci lu ñuy xool leneen déedéet kon ñooñu bindkat yooyu loolu ñu def bokk na ci ay fm mooy ñimeloo ñi nga xam ni duñu ay jullit wala ay jullit lañ waaye dañoo dëng ci seenu doxiin di contre ak di delloo xadiis yu yonent bi salaa salaam su ñëwee wut ak seen xel xadiis yi ñëw saxiix Buxaari saxiix Muslim bu dëppoo seen xel ak seen gis-gis ñu daal koy delloo daal di ñu lu tax wérut yii saa ñu ne daa wuuteeg xel yii saa ñu ne dafa wuuteeg alquraanul karim loolu nag boo xoolee eh, jinaaye la tooñ gu mag la goo xam ne tooñ nañ ko borom xam-xame xadiis yi waaye tooñ nañ ko wàllu islam yëpp li ci yéeme nag mooy lenn ci wootekat. yi ñuy wax ne ay wootekat lañ ci lislaam di ay bindkat day gis ñoo xam ne seeni téere loolu lañ fay saxal bal am na ci ñoo xam ne dañuy delloo xadis yu bëree bëri ñëw ci saxiihul buxaari saxiih muslim al ahadis al muttafaqa alayha ku mel ni al imaamul ghazali al muasir ci téeram bi mu tuddee as sunnatu nabawiya bayna ahlil fiq wa ahlil xadis téeram boobu radd na fa delloo na fa xadis yu bëree bëri ñëw ci buxaari bi xujjati wala bi zaami ni xadis yooyu dafay juyoog al quraanul karim bokk na ci yooyu آه، في سن ينتبه صلى الله عليه وسلم وقت حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه تني لا يقتل المسلم بالكافر مانا اب يفير بران اب جوليت موكو راي كان دو فايو تي كاو جوليت بي بالقصاص موي راي موم حديث بوب نيونا سي صحيح البخاري نينا حديث بوب ويرول لو تخ ويرول نين را ووتيك القران بان القران لا ووتيل نينا في سن بران وخني وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس moom tee teemu woon a tuumaal am xelam mais nee na hadis bi hadis boo xam ni ci jamonoy Buxaari yi ak maa qablal Buxaari yi ba léegi borom xam yi dañoo ànd dëppoo ci ni wér na ba ci ñi critiqué Buxaari yi sax ci wàllu asaanid ak sinaa al hadis yi amul kenn ku tudd hadis boobu moom ne na hadis boobu wérul hadis boo xam ne mboolem xeet wi ci siècle yi yëpp dañoo dëppoo ni wér na ne wérul lu tax wérul ne daa wuuteeg alquraanu karim lu mu wuuteeg alquran nee na suñu borom dafa wax ni bakken moom bu reyee bakken ñu rey ko maanaam ku rey ñu la suñu borom tabaaraka wa taala wax lolu manas nako tontu ci ñaari mbir bi ci jitu moy aya bi dafa nek amma wa katabna alayhim fiha anna nafs bin nafs lolu dafa nek lu généraliste lu matale wa sunna dañu taxisal ko sunna ñu taxisal ko la yuqtalu al muslimu bil kafir te lolu bari na al-quran bari na aya yo xamne amma la mais sunna moko taxisal taxsiisal suñ borom tabaraka wa taala neena yasalunaka 'anil mahidi wala yasalunaka 'anil mahidi maxiidi qul huwa adan faatadilu nisaa fi al dañu laaj yonente bi sallallahu alayhi wasallam jigen ji nga xam ne dafa mbërëg mu ni mbërëg moom sobe la bu dalee jigéen gi na ngeen ko beru faatadilu nisaa fi mahid jigen ji mbeureug nañ ko beru bo xolé zahiru ayat rek comme ñom dañu wax ni dañu sukkandiko ci zahirul quran hadith bi wuuteeg zahirul quran ñu delo ko bo xolé ci zahirul quran mom i'tizal gogu kulli la shamil la mooy i'tizaaluhunna fi mashrabi wal walmadja kenn du lekkandoo ñoom kenn du naanandoo ñoom kenn du tëddandoo ñoom kenn du bokk ak ñoom sax foo dëkk boo jëlee zaahir bi loolu lay jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne isna'u kulla shay'in illa nikah isna'u kulla shay'in illa nikah taxsiis ñëw na nee na beru gi mooy beru leen ci sëy doo jotee ñoom ci sëy waaye waxul ñu dañ leen beru doo lekkandoo ak ñoom doo toogandoo ak ñoom ñoom ila axiri yi soo doon xool rek ci zaahirul quran boo moytul da ngay daal delloo lan xadis boobu te fekk li dafa nekk am li nekk xaas te alquran sunna da ñëw di ko taxsiisal ndax moo koy leeral kon foofu aaya boobu àmma la waaye dañ koo taxsiisal lu ko taxsiisal sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ci geneen anam alquraanul karim ci boppam bi nga sukkandikoo ngir delloo xadis bi ngir ne xadis bi ci boppam saxal na ci aaya yu bari ni yéeféer bi ak jullit mënuñoo yem borom bi tabaraka wa taala nee na afa man kaana muminan ka man kaana fasiqa borom bi waxaat ni afa najaalul muslimina kal mujrimin وقال ام حسب الذين ترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات كون ميم بو ديلو وانتي القران القران دغال نا ليغا خني موم لا حديث دي واخ وانا لي ورا لول موي بو جيتال سي خيل سي كاو تكسي لو ووت سي خيل غاني لول نانكو ديلو اكيت كوم اورينتاليستي داني كونتر وال اسلام سي اي قضايا يي بري سي مساله الدين غير بغا جيغنانتي اك نيوم دا نا بوسي نين سي خلات كات ييغا خامني سين خام خام ماتيول سي خام خامو حديث ني ديلو حديث يونس بي صلى الله عليه وسلم تين داووتك القران الكريم kon tomb bi nga xam nak moy xolu waxtani moy ardu adillati wa shubahi muddai muddai mu'aradati alhadith ala alquran wa naqduha amna ñi wax ni alquran dañ koy fénqale ak hadith wala ñi fénqale hadith ak alquran bu hadith bi ak alquran ñu jël ko bu wuté ak mom ñu delo ko ñoñu dañuy garal lenn ci li ñu jàppee ay lay donte sax ca deug deug do ay lay way ay shubha la ay lënt-lënt la yu nekk seeni bop buñ ko waxe ba nopi dat koy tontu dat koy leral ñi nga xamne dañuy wax ni alquran bu wuté ak hadith dañuy delloo hadith bi wala buñu garalé hadith ci quran bu wuté mom dañ koy delloo lañuy sukkandiko ci liñuy wowe ay lay ci ñoom donte ay shubah lañ koy wowe ci ñun man na sédel ci ñenti ñeenti euh xaaj bu ñëk moy al istidlal bi hadith inna hada al xadisa sa yashwa anni inna hada al xadisa سيفشو عني فما أتاكم يوافق القرآن فهو عني وما أتاكم يخالف القرآن فليس مني seen référence bi ñu njëkk a sukkandikoo mooy nee nañu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu wax ni di ngeen dem ba jamono ñu tasaare xadiis mooy di ma nettalil yonente bi nee na yonente bi nee na nee na mun leen su boobaa lu ñëw ci lu leen nettali ci man mu dëppook alxuraan xam leen ni maa ko wax waaye lépp loo xam ni neen leen maa ko wax mu wuuteeg alxuraan loola bàyyi wul ci man xadis booba mboolem wala ñu ëpp ci ñi nga xam ne dañuy demee ci idée boobu te mooy muaradatul xadis bil quran loolu bokk na seeni lay waaye foofu li ñu leen tontu mooy loolu du du xadis lii ñi du xadis xam nga lu dul ab xadis kenn du sukkandikoo di saxal ab masala lii du ab xadis الزنادقه نيوكو فنت اسكنكو يونتي بي صلى الله عليه وسلم مو حديث بوبو نيكول حديث بوير مبولم بروم خام خام حد نكو ديلو الامام ابن مهدي الشافعي ابن المديني الساجي ابن عبد البر نيوم نيب نين حديث بوبو لا يصح ويرول ابن المديني نينا ليس لهذا الحديث اصل والزنادقه وضعت هذا الحديث حديث بي امول تشيس لاي امول سخ اسناد امول تشالله الزنادقه خيخ كات الاسلامي noonu lislaam am dañuy feeñal ak ngëm yàlla dina bu ak kéeféer ñoo ko def ngir man a rotal lu bëree bëri sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon li ma ko foofu mooy balaa nga booy istidlaal ci benn xadis day fekk xadis bi nekk bu wér xadis bi laa yasix kon li ñu leen tontu mooy aadamu sixa parce que fi ñu sukkandikoo mooy asubut wa sixa lii wér na wala wérul waaye lii yonent bi alayhi salaam aslan waxu ko kon mënuñu see sukkandikoo di saxal idée boobu majmua mooy ñaareelu xaaj bi ci tegtali ñooñu mooy al istidlaalu bi tasarrufaati saxaaba lenn ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam tuxal nañ ci ñoom yenn taxawaay ak yenn wax yoo xam ni ca la ñeneen sukkandikoo daan ne ah kon bokk na ci manhaju saxaaba bi nga xam ne ñoo ko xàllal ñëw seen ginnaaw xadis bi nañ ko gaaral alquran bu dëppoog moom ñu jël ko bu dëppootu moom ñu bàyyi ba ci jiitu mooy xadisu Fatima bintu Qays mom borom kam dako ko fase borom këram dako ko fase passé mu dog passé mu dog moy ñetti fase ñetti fase bu xisee am mom jigen ji dotul dagan dagan dagan borom kërëm lulul ba'da zawjin fa in talaqaha fala tahillu min hatta tankaha zawjan ghayra loolu alquran wax mom Fatima moy netti li muni bi ko jëkkëram fase ñetti fase muy talaqul ba'in neena na bi sallallahu alayhi wa sallam defalu sukna ak nafaqa manam waxul ni ne continuer dëkk ca kër borom këram boobu ko fase fasem ba in waxul ni war na ci borom këram mu koy dundal loolu ba mu ko waxee mu àgg ci Omar radiallahu anhu Omar fekk moom safaanu loolu la daan wax da wax ni ki ñu fase fasem ba in lahaa sukna wa lahaa nafaqa ki ñu fase fasem ba in moom li jàppoon mooy jëkkëram day ko ne dëkkal ko ba noppi di ko dundal Omar bañ ko waxee li Fatima nettali ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa wax ni laa natruku kitaaba rabbina وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت mu ne nun duñ bàyyi waxi suñ borom ak sunna yonente bi saa salaam ngir waxi jigéen joo xam ni wóoruñu ba xam mokkal na lim déggee ci yonte bi wala daa fàtte jaawale nasu boobu nag moom la gaa yi exploité di wax ni kon bokkoon na ci manhaju saxaaba yi di gam-gamle ak di gaaral ak di fénkale alquran ak sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam su fekkee sunna si dëppoo ak alquran ñu delloo ko omar ba mu waxee loolu ba nopp daal ni laha sukna wa nafaqa jigéen ji mu fase fasem baa in jëkkëram da koy dëkkal day kone di ko dundal daal di jàng aaye bii laa tuxrijuhunna min buyutihinna waaye foofu dañuy wax ni mënee su la sukkandikoo ci xadisu omar boobu déedéet ndax omar delloowul xadis bi ngir ne daa juyoog alquran seetlu woon li mu wax laa natruku kitaaba rabbina wa sunnata nabiyina du ñu bàyyi téeréef suñ borom bi lañ ci jàngoon xam ko ak sunna yonent bi saa sallam ngir waxi jigéen joo xam ne amaana muy tari di wax nan ci bi la jël da fàtte kon foofu mahallu shaahid bi mooy Omar dafa amuloon confiance ci ni jigéen jii lii muy wax mokkal na ko jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala déet ndax mahallu shaahid foofu mooy su fekkonte ni wóor na ni kii lii wax mokkal na kon du ko du wala déet kon delloo gi du caagin loolu daa wuuteeg alquran déedéet waaye Omar dafa amul confiance ci ni kii lii muy wax ndax lu mokkal la wala mokkalu ko bokk na ci liy wane loolu xadis aaya bi Omar wax laa tuxrijuhunna min buyutihinna boo ko xoolee li ko taxoon a jóg mooy ki ñu fase pasem fay li mooy talaaqu raji yi ndax kat ci aaya ba ba muy jeex dane laa tadri la alla allaha yuxdisu baada dalika amran te loolu ci pasem pasem raji yi lay doon waaye pasem bàyyi moom fay li amu ca kon pasem yi ñuy fayle moo taxoon aaya bii ñëw waaye pasem bàyyi tax koon a jóg kon li ñu bëgg wax foofu rek mooy Omar radiallahu anhu foofu fénqalewul xadiis bi ak aaya bi waaye kii di nettali la amul confiance ci ndax mokal na li muy nettali wala mokkalut te loolu méthode boobu moom la borom xam xadiis yi andi continuer ba léegi raayu bi su fekkee amul ci moom siqa ci li muy nettali kenn jël beneen bi mooy Omar ibnu Xataab radiallahu anhu bi ñu ko jamee Suhayb bu dafa ñëw di ko gis Omar ak mettit wi muy jooy naan man dinaa ñàkk sama mbokk mi mooy Omar ibn Xataab radiyallahu anhu Omar ni ko da ngay jooy wala da nga may jooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee woon na inna al mayita la yuadabu bi baadi bukaai ahlihi alayh ni ko yonent bi nee woon na day néew bi dees na ko mbugal ci bàmmeelam ci sababu jooy yoo xam ni ñi fi bàyyi ci ginnaawam ñoo ko ko doon jooy loolu Omar wax te xadis boobu ñëw na bu wér la Ibnu Abbas radiyallahu anhu mooy nettali mu ni bi Omar génnee àdduna منتل حديث بابا عائشة رضي الله عنها عائشة نما رحم الله عمر يا يعني اللي يرم عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه يقول با بام وخيل البنك دا دور جانغ آيه تما ولا تذروا وادرة وذر أخرى سخنا عائشة بيكو ابن عباس نتلي حديث بوابو عمر وقت موي إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه داني لولا ينتبي نتلي وكو ينتبي داني وون يفير بي داني كي دول لمبغل تي بامي تي سبب جوي يكو واكرم دي جوي بي عائشة بخي دادي تاري آية بوابو نحن موي ولا تزر وادرة موزر أخرى موي بكار كأنه دون كون بغل كأنه وايكا دف بكار بكو كل نيم بغل بكار بكار فوف بو خولي رضي الله عنها delloowul xadiisu Omar bi te mooy innal mayyita la yu'adhabu bi bukaay ahli alayhi déedéet ngir ne daa wuuteeg aaya bi waaye lan ma tax mu delloo ko ndax loolu Omar nettali daa wuuteeg moom la mu déggee woon ci lan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dañu ko loolu day yàlla na yàlla yërëm Omar yonent bi waxul loolu yonent bi li mu wax mooy innal kaafira inna allaha la yaziidul kaafira adaban bi bukaay ahli alayhi dal loolu la déggee ci yonnati bi sallam kon boo xoolee foofu Aïcha la mu mokkaloon jële ko ci yonnati bi alayhi salatu wassalam mo wutek la Omar nettali mu dadi di delloo loolu door a andi nak aya bi kon fofu aya bi da ko do andi ngir degeural mom famu taxaw famu mu jàpp waaye andiwu ko ngir delloo la nga xam mom la Omar wax radhiyallahu ndax bo xolé siyaq bi dañu yonnati bi day waxul won loolu lim wax moy inna allah la yazidul kafira adaban kon xadisu inna allah la yazidul kafira adaban ci la sukkandiko ba baña jël xadisu Omar bale waaye sukkandikoowul ci aya bi kese bokuna ci yoy batay ñaar dañu ñëw ci aisha radhiyallahu anha niko abu hurayra neena yenen tibi sasam day wax ni innama tayaratu fil mar'ati wad dabbati wad dar soxna aïcha ni dedet gina ci yàlla ni yonent bi lim doon wax moy kana ahlul jahiliyati yaquluun inna tayarata fil mar'ati wad dabbati wad dar gat nga dal ci jigen la nek ak ci dabba muy war way ak ci keur ba Abu Hurayra nettalee loolu soxna Aysa dañu déedéet yonte bi kay li mu doon wax mooy waa ceddo yi ñu doon dund lu jëkk lislaam mu ceddo yi dañ daan wax ñoom ñoo daan wax ni gaat ngalu wala gaaf ci ñett la nekk ci jigéen ci daaba te mooy waruwaay ak ci kër Aysa ba mu waxee loolu daal di jàng aaya bi maa asaabat min musibatin fi ard wala fi anfusikum illa fi kitab foofu boo xoolee amul tegtal bi wane ni soxna Aïcha radiallahu anha dafa delloo hadith yonente bi sasam ngir wuute gum wuuteeg alquran déedéet ndax boo xoolee moom la mu mokkal daa wuuteeg abu hurair mokkal bañ ko nettali abu hurair wax lu mu wax dañ yonente bi de waxul loolu dani kaana ahlul jahiliyati yaquluun kon gis nga ba tey toujours ñoom li ñu mokkaloon démb ci yonente bi salaasam soo waxee lu wuuteeg moom duñ ko jël dañuy wóorliku waaye nekkul ni su nit waxee ab hadith dañ koy fénqaleeg quran bu dëppoo moom jël ko bu dëppoo tam moom ñu delloo ko لول نيوخ تي مثال موم لا نيوخ تي حديث قليب بدر آه، حديث ولد الزنا شر الثلاثه كل لي ما بغا تنك فوف موي صحابه يونت بي عليه الصلاه والسلام نيكو نيون ньо خان دنج دان جيل سنه يونت بي صلى الله عليه وسلم اك حديثام بو صح بو وير بايكو تي يونت بي عليه الصلاه والسلام نيكوي فينخلي اك القران ديدت واي سولن وخي نك لو بيس لو خامني نيو كوي دورو ديغي ووتك لا نيو موكلون ديمب ولا اي ات تي يونت بي عليه الصلاه والسلام دنج كو جيل نونو دانيي دادي تفلي تثبت duñ la bett waaye dañ def tasabbut muy wóorliku léeg-léeg ñu wax la ñun kat lii nga dégg de bokkut ak lañ dégg ñun day liñ déggoon mooy nangam ba noppi nag su amee aaya bu koy dëgëral ñu toftal ca aaya boobu wax aaya boobu al majmuatu salisa ci nga xam ni ñii wax ni alquran dañ koy xadis dañ koy fénqaleeg alquran bu dëppoog moom ñu jël ko bu dëppootoog moom ñu bàyyi ko bokk ni al istidlaalu bi kalaami baadi al muhaddithin wa taqriratihim dem ci lenn ci téere mustalahul xadis yi wala ulumul xadis wala téere xadis yi wala téere jarx wa taadil di ci jël yenn ci waxi borom xam-xam yi diko sukkandiko diko deugarlo ci lolou ñu jàpp waye ba tayit fofu duñ am delu way bu wor bu deugar ibnu xajar rahimahullah ci nukat da fay wax bam yag mu ni madaru ta'lil fi lxaqiqati ala bayan l ixtilaaf ne ni fi ñuy sukkandikoo deug degg nag ni xam ni hadith bi da rag wérul mooy bayaanul ixtilaaf nga ma hadith bi ki koy li mom ñaari anam rek la am ben mu beru netti liko kooku am na ay cas ak ay xaalaat xaasa ak ahkaam yu mu jagoo wala mu nettali ko keneen fekk si ko ci loola kooko ci fekk si kooko ko fekk si ne ci loola mën naa am mu dëppoog moom wala mu wuuteeg moom loolu ma tudd al mutaabaatu ala al muwaafaqa wala al muxaalafa su ko jëlee ci Cheikh Omar Diallo mii wala Cheikh Omar Sall Bachir jëlee ko ci Omar Sall kon dajan ñoo ci benn cheikh kon mutaabaa la man dama ko riwaayee an Omar Sall mawsulan ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moom ko mursalan كون موم تابعني في جزء وخالفني في جزء يعني وافقني في الاخذ عن الشيخ دبو نان مان سي سيرن بما جيلي واي نك سي صفه الروايه ووت نان موم لول مو تدو المتابعه على المخالفه كون بروم خام خامي حديثي بو فكانتني راوي بي دا فا ام كو ووتيك موم لي نجيك داف موي داجالم بولم طرقي مو جار لول موي سين منهج كوم نيكو آه، امام علي المدني واخي الحديث اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطاه حديث بو بغي خام جومتال رك داجال طرقي مو جار با نيو موتا ابن المبارك دان واخني اذا اردت ان يصح لك الحديث فاضرب بعده ببعض بو بغي خم دا حديث بي ورنا ولا ورول جيم كو فنكل يينن حديثي خول غام غام لي خول كين كو ني نكالا كو نيتلي نكالا كو جيري سي اف سيرينم ديغا خامني لي موي الصواب لي موي الخطا سي لول لا ابن حجر دان واخني مدار التعليل في الحقيقه على بان الاختلاف رواتي بو ني ووتي منو خم با خم حديث بي ورنا ولا ورول دا غا دغال تروخ ييب موي شين boo ko dajalee nga càmbar kenn ku ne naka la ko nettalee jëlee ci sëriñam kenn ku ne lan mooy aw melokaaram ci wàllu mokkal ci wàllu maandute ci wàllu jub ila axiri yi kenn ku ne diir bu toll nan la takkook sëriñ bi di jël ci moom xam-xam ci loolu nga sukkandikoo xam ne xadis bi sax na wala saxul kooku mooy xam-xamu ay laal kon loolu la ibnu xajar doon wax am ku ko jël ci ñooñu nag daal ni ibnu xajar wax ñu wax ne madaaru taalili fi lxaqiqati ala bayan ixtilaaf mooy dëgg-dëgg xam ne xadis bi wér na wala wéradi na bu ñu ko bëggee xam wala am na jàngalu nit dañuy daal di xool wala ñu leeral wuute bi ci am mu ne wuute boobu nag day dugal wuut xadis bi wuuteeg alquran karim ibnu xajar loolu waxu ko ci benn téere foofu dañuy wax ni ibnu xajar rahimahullahu taala li mu wax wuute naag loola borom xam-xam xadis yi ko jiitu woon li ñu tuddee muqaranatul marwiyat wala tudd almuwadanatu bayna riwaayaat loolu la bëgg a saxal fii waaye du caagin ni xadis dañ koy gam-gamleeg gam alquran di ko fénqaleeg moom bokk na ci li wane loolu moy bo tambale ci wax ibnu hadjar ci bop ba ba keur ngay exi da ngay xamni la ibnu hadjar di wax ak ñi sukkandiko ci waxam di ko layal seen idée bi bokku ñu ibnu xajar rahimahullahu taala day wax ni wa idha taqarrara hadha fa as sabilu ila ma'rifati salamati al-hadith na illa kama naqalahu al-musannif ay ibnu salah an al-khatib an yujma bayna turuqihi fa in ittafaqat ruwatuhu wastawa daharat salamatuhu wa in ikhtalafu amkana dhuhuru al-illa fa madaru at-ta'lil fi al-haqiqati ala bayan al-ikhtilaf ابن حجر رحمه الله نانا يون وي جار با خامني حديث بي موتشنا شي عيب نانا موي نيكو ابن صلاح نيتلي جيلكو شي خطيب البغدادي تي موي نانيو داجالي مبولم تورخ يي حديث بي جار با نيو سونو غيسه نيكو نيتلي ني دپو شي نتلى نيتلي ñu xamne hadith bi kon werna suñu wuté nak néna ñu gëstu xol amana amna rag rag bu nekk ci biir hadith bi wala amna ku joom ci non ko natalé mu daanel daani fa madaru ta'lil fi kon fa ñuy sukkandikoo ngir ragal ab xadis wala ñàkkoo ragal mooy xool ixtilaaf bi nga xam ne moo am bayna ruwaat bokk na ci yooyu xawlu ibni xibbaan bokk na ci ñu sukkandikoo ba tey ibni xibbaan day wax ci téeréem bi nga xam ne moom mooy saxiix ibni xibbaan ñu tudde ko at taqaasim wal anwaa day wax ne wa mata ulima dalik yaani wujudu mutaabatin aw shaahid wal xabaru fi nafsihi yuxaalifu al usul altalaata ulima anna alxabara mawduu wala وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه ابن صلاح ر... آه... ابن حبان رحمه الله ديوخ ني حديث بي سنكو خوله راوي بي ويتو تيالغي امول متابع امول شاهد امول متابع موي امول كين كو دبو موم سي سيرينم ولا سيرينو سيرينم بكرغي اغ سي صحابي بي تيت حديث بوبو نيتلي امول بنن صحابي بو نيتلي جيلكو تي نونتي صلى الله عليه وسلم نينا اندك لولو نك ني خول حديث بي حديث بي ووتيك القران wuuteeg sunna wuuteeg ijma dañuy xam ne xabar bii yonente bi waxu ko xadis boobu yonente bi waxu ko waaye daa am ku ko tër wala ku ko nar askane ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na boobaa sax du ñu sikk sàkk ni kii nga xam ne moo wéetoo xadis bi moo ko moo ko créé ba noppi askane ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam am nañu sukkandikoo ci wax ibni xibaan ñu ni kon bokk na ci métatu muhaddisiina yi ak mesures yi nga xam ne ci lañ daan xamee xadis bi wér ak bi ñàkk wér mooy gam-gamle ko ak fénkale ko alquran bu dëppoog moom wér na bu dëppootu moom wérul foofu li ñuy tontu mooy ibnu xibbaan rahimahullah waxam jooju daa am lu jiitu woon ibnu xibbaan lii jëmale ko ci mboolem ruwaat yi parce que ruwaat yi ñetti xeet la muttafaqun ala tawsiix yi koo xam ñëpp dëppoo na ni moom siqa la muttafaqun ala tadiif yi koo xam ñëpp dañu dëppoo ni moom daif la ak koo xam ne bay na bay na la ci diggante bi la nekk uxtulifa fi amrihi ñi ni moom siqa la ñi ni du moom siqa du siqa siqa mooy koo xam ne am nañ ci moom confiance mu dajale al amaanatu wal adaala wa diyaana ku maandu la ku am diine la ku jub la ku tënku ci diine kooku mooy siqa <laughs> ibnu Hibbaan bi mu wax mooy raawi bi nga xam ne dañ koo jam te kenn jamu ko ci wàllu diineem mais ci wàllu mokkalam lañ ko jam raawi bi nga xam ne dañ koo jam ci wàllu mokkalam la ibnu Hibbaan wax ne raawi boobu bu ñëwee nettali ab xadis bu amee ku dëppoog moom ca xadis ba xel dana daal ñu nangu ne xadis bi wér na mokkal na ko su fekkee moom moom i nga xam dañ koo jam ci wàllu mokkalam moo beru te bul fàtte ni mokkal sart la woon bi tax ñu nangu xadis bu fekkee moom moomu ñu jam ci wàllu mokkalam dafa beru ci xadis bi kenn fekk siw ko ci amul beneen saxaabi bu ko nettali amul ko dëppoo moom jële ko ci sëriñam wala sëriñu sëriñam ba mu àgg ci saxaabi ba nee na ku mel noonu xadis boobu mu beru xadis boobu la wax ni bu ñëwee dees ko nangu dañ koy delloo wérut xadis boobu wérut mu nag su ca boolee nag ñàkk wér ba noppi ñu gis ne maanaa xadis bi dafa wuuteeg alquran wuuteeg na wuuteeg ijma dañuy xam ne sax woomu la ñàkk wéru xadis waaye moom mii moo ko ree xadis fent ko askane ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon leer na foofu ni ibnu Hibbaan waxul ni xadis bi bu wuuteeg alquran dañu koy delloo wala dañuy gam-gamle xadis bi ak alquran wuute moom ñu delloo ko dani aji nettali ji nga xam ni dafa am problème mokkal ba tax ñu jam ko ci mokkal maanaam moom kenn doyloowu ko ci mokkal donte diine amu ci problème waaye wàllu mokkal mémoriser foofu lañ ko jam mu ne ku mel noonu bu nettalee xadis bana beru mom dongu ken fekk siw ko ci amul lu ñuy tuddee mutaabaa wala shahid nee suba hadith bobu dañ koy delloo xana lolé leer ci lol nak la doro andé ni waye su ci hadith ba dolé nak wérul ba nopi nak wuté ak alquran wuté ak sunna wuté ak ijma dañuy xamni li sax waxuma la hadith bi waye mawdu la hadith mawdu mo loo xam ko fenal yonente bi alayhi salatu askan na ko te moom waxu ko bokku na ci yoy batay ibn hibban rahimahullah ci al majruhin tere mi tuddé al majruhin ابن يترجم تكون ابو زيد ابو زيد دا فنت لي ابن مسعود رضي الله عنه حديث الوضوء بالنبيذ موي كيغا خامني تاي امول ندوخ مو مانا جابي ندوخ ميغا خام دنجي خوج داف كو نجارم تاندرما نتي جاب ابن حبان دادني وابو زيد يروي عن مسعود ما لم يتابع عليه نينا ابو زيد مين نيو تي تيالا لي دي لي مي نتلي تي ابن مسعود رضي الله عنه موم دوغ مو بيرو نتلي كو ابن مسعود ابن مسعود اي ندونغ يو بري لا امون واي كي رك موي نتلي كو تي kooku luy mbiram ibn abbas ne ibn ibn hibbaan ne laysa yudra man huwa kooku xamuñu xamuñu sax mooy kan faf bi maanaam majhul ayni la wala yurafu abuhu wala baladuhu kenn xamul sax kuy baayam ak fu mu dëkk jëmm joo xam ne kenn xamul kuy baayam kenn xamul fu mu dëkk kenn xamul ko nga xam ne majhul ayni la moom xadisam dañ koy delloo waxatuma su fekkee dafa beru ci loo xam ni bu doon ibn mas'ud moo ko nettali ndongaam yépp dañu ànd nettali ko te xam nga lii nit ñi dañ koy soxlawoo nit ki mën naa dem ci kaa boo xamante ni gisul ndox mu mu jàpp alxuraan la mu wax mooy nañu tiim loolu sunna wax moom ne mën ngaa fekk ndox moo xamante dañ koo xóoj ak tàndarma def ko am njart nga jël di ko naan nga jël di ci jàpp mahallu shaahid foofu mooy ibnu Hibbaan bi mu waxee loolu ba noppi daal di ni xadis bii de ki ko nettali moom donc moo ko wéetoo te kii majhul la du ku ñu xam da cay technique wal insaanu ida kaana bi hada naat nit ki su fekkente ne lii mooy melokaanam nekkul ku ñu xam summa lam yarwi illaa xabaran waahidan nettaliwul lu dul benn xadis xaalafa fiihi alkitaaba wa sunnata wal ijmaa wal qiyaas wal nadar wa ray mu wuteeg alquran wuuteeg sunna wuuteeg ijmaa wuuteeg qiyaas ak li nga xam ne mooy ijtihaadu borom xam-xam yi yastaxiqu mujanabatahu fiha wala yaxtaju bihi nee na kooku la mu yeyoo mooy ñu delloo ko xadisam waaye kenn sukkandikoo ci xadisam foofu boo xoolee ibnu xibaan rahimahullahu taala waxul ni dañuy fénqale xadis ak alquran pour xam ba xam wér na wala wér ndax moom delloo na xadis bu yàgg balaa mu egsi ne xadis bi juuyaan ak alquran wala juuyaan ak sunna wala ijmaa delloo na bu tax mu delloo ko raaya ji ki nettali ki nettali kenn la majhul kenn xamu ko kenn xamu ko li ñu ci jublu mooy raaya bi kenn xamu ko ci sàkku xam-xamu xadis xamuñu kuy ab dongaam ak ku jëlee ci moom ku mel noonu majhul la xadisam dañ koy delal lu tax parce que ñaari charte yi nga xam ne moom lañ chartoon mooy al adala maandu gi ak daftu mokkal du fa am koo xam ne kenn xamu ko xamuñu ak mokkalam xamuñu ak maandu teem jëmm ji sax kenn xamu ko kenn du jëlee ci moom xadis كون ابن حبان لي تخ مو ديلو حديث بوب دو تياغين دنجو فينكليك القران مو جو يوك موم ديدت واي راوي بي دا فا ام لو مانكي كي موم موي ني خام كو خام عدالام اك دابتوم عدالام موي مالو تيم دابتوم موي موكال نياري بن داجيول تي راوي بي لول موتاخ مو ديلو حديث بوب لول موتاخ بو ديمي تي ابن عدي ليرال نكو تي كتاب الكامل ابن عدي نينا وهذا الحديث مداره على ابي فزاره عن ابي زيد مولى عمرو بن حريث عن مسعود وابو فذار مشهور واسمه راشد بن كيسان وابو زيد مولى عمرو بن حريث مجهول ولا يصح هذا الحديث عن صلى الله عليه وسلم وهو خلاف القران ابن عدي ان الحديث بي مبولم تيان يم ام ييب اك تيالال موغي تيري تي كوني وخ ابو فزارة ابو فزارة مم موكو جيل تي ابو زيد ابو زيد جيل كو تي ابن مسعود نينا ابو فزارة كوني خم واي نينا ابو زيد مجهول مجهول وخنا لا موي كو خامني خمو ني ادالام اك دابتوم متكي امام ابن ابن عدي ولا يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسغري موم اندي وسال القران داني حديث بي ويرول بايكو تي صلى الله عليه وسلم ده راوي بيكو نتلتي موي ابو زيد هنا مجهول تي دانا لني وهو خلاف القران اندني حديث بي صح واي دبو تك القران ما خلو شاد موي فينا بو حذف وهو خلاف القران بي ده اتي بي سوبيكو ميم ابن عدي بو اندي وهو خلاف القران حديث موم مو القران دو موكاي موتك القرآن تظاهر ما نم ظاهر آية تقول مبر مبرد لكي تخبر كم أي شرط عدالة ضبط اتصال سنة انتفاع أسوي انتفاع إلا القادحة وخذنا كسان كن موتك من يكون ولا يصح هذا الحديث لتا حديث بيرو موي دا فا راي بو بو خامن دي ابو زيد مجهول لا كوني خاموت لا سي لول لا واخني وهو خلاف القران اندك نول حديث بوبو دا ووتيك القران كون لول دا فا نيو بور دغيرال بور وني حديث بيرو waye bu fan ci alquran lay sukkandikoo kon day ñëw rek direct daan ne xadis bi wutna alquran wéré dina wax hakada kon fofu ibnu ali rahimahullahu taala delloowul hadith bi ngeen wuté ak alquran waye rawi bi ci nek dafa nek rawi bo xamni kenn du jël hadith ndax majhul la lool motax bimu waxé limu wax ba nopi mu dolli ci ni dafa wuté ak alquran ngir degeural waxam ngir gën ko feddali waye wanewul ni day sukkandikoo rek ci mu'aradatul quran ngir delloo hadith bi bi ci topp mooy almajmuatu rabia mooy al istidlal bi adad min ahadith yarawna anna al muhaddithin a'alluha bi mukhalafati bi mukhalafatiha lil quran mooy dañoo andi yenn hadith yoo xam ni borom xam-xame hadith dañ ko wéradil ñu ne xam hadith yooyu li tax ñu wéradil ko mooy daa ju yokk al quran am na ay hadith yoo xam ne da nga ko fekk ci al kutubu al mawduat nga xam ne borom xam dañ ko wéradil ñu ne hadith yooyu day la tax borom xam-xam wéradil ko mooy daa wuteeg al quran bokk na ci xadis yooyu xadisu laa yadxulul jannata waladu zinan wala waliduhu wala waladu waladihi xadis bi wax ni doomi njaaloo du dugg aljana baayam du dugg aljana sa tamit dugg aljana xadis boobu ibnul jawzi ba mu ko indee ci almawduat dana waa doomi njaaloo luy bàkkaaram ba tax dugg aljana déedéet aljana kay dafay tax a dugg mooy defe santaan gëm yàlla def lu baax bàyyi lu bon daal ni xadis boobu day wuute naag cosaan yi cosaan yi mooy alquran sunna ak ijma ni la ci gëna a nak moy suñ borom fokk fi mu ni wala taziru wadratun bidra ukhra moy ken du jël bakaru ken diko ko sëf keneen kenn ku ne yaay gàddu sa bàkkaar xadis yi may andi ño bokk ben àtte man dama koy sardu ba noppi door wax hukm bi bi ci def moy xadisu yaltaqi alqadr wa ilyas kullu am xadis bi naan ak qadr at man dañuy daje nga xamni kon lañ cey dégg mooy xadar moom mu ngi dund ba léegi kon du faatu xadis boobu ibnul jawzi da ko delloo daal ne loolu alxuraan nanguwu ko sunna nanguwu ko te borom xel sax nanguwuñ ko tax suñu borom nee na wa maa jaalnaa li basharin min qablika al afa in fahumul fa xaalidun amul kenn koo xam ne defaloon naa ko ci ñi la jiitu woon mu sax fi béer fi ndax boo génnee àdduna ñoom ñoo fiy des béer xadisu sabbu ashaabi danbun laa yuxfar saaga samay saxaaba bàkkaar la boo xam ne deesu ko jéggale cheikhul islam nee na lol day ñako wax dañ ko fenal yonent bi alayhi salatu wassalam ndax yàlla neena inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dalik liman yasha benen hadith bi wax ni ko xamne ku tabe la day yàlla bëgg nako ko donte sax afasiq la ku gënu top la waye ku nay mom yàlla bëgg ko donte sax day nekk ci jàkka ja di jaamu yàlla ka def ay nafila hadith bobu Cheikh Ali qari neena na amul cosaan moy amul isnad neena xaj bu ñëk bi ci hadith bi te moy wax ni كيف كنت بس على يالدلي بقدون تفاسق نا نقول ووت ناك القرآن نقصد برمن إن الله يحب التوابين برمن إن الله لا يحب الكافرين أو إنه لا يحب الكافرين والله لا يحب الظالمين تفاسق بك جن أكتبه ساي ساي بي بينما بوكتي تون كدي ولا بوكتي يفري حديث بيجي موي الإيمان مثبت في القلب كالجبال الرواسي وزيادته ونقصانه كفر ngëm yàlla dafa sax ci xol comme ni montagne saxe ci ci doli ko ngëm yàlla ak ko ngëm yàlla ak kéfer la hadith bobu Cheikh Albani rahimahullah bim ko ëndé jàngat ko ci walu cham chambar ko ci walu càllale gi dane hadith bobu wérul ba xébé agal ba wa hadha alhadith muxaalifun lil ayat alkathira almusarrixa bi ziyarati aliman ni hadith bi ànd ak ni wérul dafa wuuteeg xadis yu bari wala aaya yu bari yu ñëw di wax ni ngëm yàlla day ko day ko hadith ba ci mujj moy hadith abu hurayra te mooy xalaqallaahu turbata yow ma sabt xalis bu gudd la dafa wax ne suñu borom mu ngi bind suuf si ci bisub gaaw muy samedi bind montagne yi bisub dimanche muy dibeer bind garab yi ci bisub altine bind la nga xam ne mooy safaat mooy li baaxut mooy lépp lu ñu sib bisub talaata bind ak leer bisub àllarba bind dàbba yi bisub alxames bind aadama alayhi salaam ci bisub àjjuma ca ngoon ga ca ginnaaw takkusaan jëm sow jant ابن القيم بما عنده حديث بدني هذا الحديث وقع الغلط في رفعه هذا الحديث وقع الغلط في رفعه حديث بدني نيكو يكتي ديكو اغالي تي يونتي صلى الله عليه وسلم دجو جوب ولا راوي بيكو يكتي اغالي كو تي عليه الصلاه والسلام دفا جوب وانما هو من قول كعب الاحبار نليد وخ يونتي بي عليه الصلاه والسلام كعب الاحبار مكو وخ نانا ني مكو وخه امام المحدثين نا امام البخاري في تاريخ الكبير امام البخاري في تاريخ الكبير ان حديث بي ويرول دونت حديث مو صحيح مسلم وانا حديث بي ويرول ندخ راوي بيكون نت دافا جوم اسكنكو يونتي بي عليه الصلاه والسلام تي يونتي بي واخول لي لي كان مكو واخ كاب الاحبار ابن قيم بي واخي لول بو وانا حديث بي دافا ام كوتي جوم نتلكو يكتيكو با اغالكو تي يونتي بي عليه الصلاه والسلام تي واخي كاب الاحبار لا دافتي تكني وهذا الحديث يقتضي ان مده التخليق سبعه ايام حديث بي li muy teg tegtale mooy yàlla daa bind asamaan ak suuf ak nekk seen diggante ci juróom-ñaari fan te nag yàlla li mu wax ci alquran mooy wala xad na samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayam kon ba tey ginnaaw bu hadis bi wéradee nekkul wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye wuute naag alquranu karim foofu boo xoolee hadis yi ma tuddoon mat na juróom-benn hadis boo ci génnee hadisu abu hurayra bi mboolem hadis yooyu yëpp borom xam-xame hadis yi ci càllale leen delloo ko amul kenn ci ñoom ku delloo hadith bi ngeen dafa wuté ak alxuraan dedet dañ ko xol ci challé fekk ñakoy netali nettali sart matul duñ ay mokal kat wala nek ñoo xam danañ jëm ci walu mokal wala ci walu maanute wala yu démé non nga xamné ne bi amana sax ku ñeme yàlla la daal di fent ab hadith askana ko yonent bi alayhi salatu wassalam kon hadith yoy borom xam-xam hadith dañ ko xokk mu ni ben mu nek hadith mawdu wala mu nek daif daafan shadid min qibali asanidha kon wéradi giñ ñu ko wéradil wul ci dañ ko ak alquran mu wuuteeg moom déedéet waaye càllale yi lañu xol xamné hadith yi wérul bàyyi koo ci yaronte bi alayhi salatu wasalaam yoon wowit moy jaar way bi ndax su fekkonte ne hadith bi borom xam-xam hadith yi dañ koy ak alquran ak xol ndax depo naa ak alquran wala depo te mom ñu delo ko kon duñu sonn ci walu naqlul hadis xoola soxbatu hajjaj xajaaj rahimahullahu taala bayiko na kufa jóge Kuufa dem Màkka jóge Màkka dem Madina jóge Madina ñëw Basra ngir lijjanti benn xadis kese ndax kii dégg na ko ci kii wala déggoo ko ci moom su fekkoonte ne lu ñuy gam-gamle euh, dafa bokkoon seen méthode gam-gamle alquran ak sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam su sunna dëppoog alquran ñu jël ko su dëppootum ñu delloo ko kon loolu du ko jar loolu ay junniy kilomètre la ndax euh, Shuba ci Kuufa dafa dégg benn xadis bi ñu nettali ku ñu wax Abdullah moo ko nettali jële ko ci Uqba loolu ca Kuufa la woon Shuba ni ko xadis bii ndax Abdullah ibnu Ata da ko dégg ci Uqba waa ji daal di mer waa ji daal di mer ku ñu wax Misar ibnu Kidaab mu ngi fa woon ni ko yow de merloo nga sëriñ bi waaye Abdullah ibnu Ata mu nga Makka Shuba nu mu def daal di jóge Kuufa dem Makka ngir dajeeg Abdullah ibnu Ata ngir wóorliku ndax Abdullah ibnu Ata da ko dégg ci Uqbat ibnu Amir wala det bam ñewé ba Màkka dajeeg Abdullah ibnu Ata niko hadith bi luy biram man ko hadith bi de kima ko netti moy sa'd ibn Ibrahim ci medina mu tombeeg aj Màkka mu daje fak imam Malik rahimahullah mu laaj Malik imam Malik niko sa'd ibn Ibrahim atmi aj siwul mo nga medina Madina laa ko baye soo ba bàyyi Màkka demat medina ci sa'd ibn Ibrahim ba mu dajeeg moom mu ne Saad ibn Ibrahim yow hadis bi foo ko déggee mun ko maa ngi ko déggee ci ku ñuy wax Ziyad ibn Mexraax Ziyad ibn Mexraax sooba ne ko Ziyad ibn Mexraax ah man de jaaxle naa bi ñu ne génn waayam Kuufa la ñuy waxati ñu ne Màkka la ñuy waxati ñu ne Madina ñuy waxati ñu Basra mu ne baax na daal dem Basra continue ba mu demee Basra dajeeg Ziyad ibn Mexraax laaj ko hadis koo ko déggee Ziyad ni ko haada laysa min baabatika yaa sooba yow xam naa ne sooba soxlawoo ci xeeti hadis yi. mun ko nettali mako mun ko soxlo mun ko nettali mako mun ko shahru ibnu hawsab momako ma jele ko ci abu rayhana mu jël oqba ibnu so ba daal dar gemi ni ko yak nga hadith man shahru ibnu hawsab ñep xam nañu daif la kon kenn du jël haditham mahallu shahid moy junni mooy yoy so ba don gor gorlu ngir xam hadith bi jokk na wala jokkul bu fekkonte ni bokkoon na seen manhaj gam gam le hadith ak alquran bu wéré ñu bu deppo ñu jël ko bu deppo ñu bayiko kon so ba kay du jankotel coono bobu yëpp te loolu soo ba joxe def benn misaal la ci coono bi nga xam ni ak effort bi nga xam ni dañ ko daan def ngir xam ba xam xadis bi wér na wala wérul kon foofu boo xoolee mboolem xadis yooyu yëpp ma wax léegi ruwaat yi ci nekk dañoo nekk ñu wéradi moo tax kenn jëlu ko ba mu des xadisu abu hurayra ñëw na ci saxiix muslim waaye borom xam-xam xadis nee na raaw bi dafa juum askane ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye du wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon lako taxawere di moy nekul wax yonnati bi alayhi salatu wassalam ba ñu askane ko yonent bi alayhi salatu wassalam motax ibnu qayyim qayim mi wax lolu daf ci tekni dafa dem ci benen beneen téere mu ni فلو ساغ رد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب لردت sunan wa batalat bil بالكلية neena su fekkonte ni dagan na kenn ku nek rek bu hadith exé ci yow nga xol bu wuté zahir qur'an wala nga déggé ci al-qur'an rek nga delo ko bayiko kon sunna yëpp la ñuy delloo kon sunna dootul am benn wàccuwaay ndax comme neex nga delloo sunna bu ñu waxee ngeen daa wuteeg zahirul quran te zahirul quran lan mooy zahirul quran parce que kuréel yi dañoo bëri kuréel bu ne ak li mu jàppee zahirul quran moo tax eh, am na ci beneen eh, safha mu ngay wax ni ñun li nga xam ne moom la ñuy jaamoo yàlla te gëm ko di ko seedaloo yàlla di ko seedaloo malaaka yi mooy xadiis yonent bi saa du juyoog alquran du contradiction ak mboolem wax yonente bi sallallahu laa wasallam day leeral alquran day firi alquran di feren fàcce lépp loo xam ne alquran ba mbëstal na ko kon képp koo xam ne dangaa delloo ab xadis ngir jàpp ne dafa wuuteeg alquran yaa war a seet sa bopp waaye xadis moom du wuuteeg alquranu karim waaye foog fekk day dëppoog alquran day dëgëral alquran dëgg la nag xadis yonente bi sallallahu alayhi wasallam am na ay détails ak feren fàcce yoo xam ne doo ko fekk ci alquranu karim imaamul xataab yi nee na xadis aajowul ñu koy gaaral ci alquranu karim saa yoo xam ne gëstu nañ ko ci anam gi ko borom xam-xame xadis di gëstoo mu sax bàyyi ko ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di nekk aw lay woo xam ne jullit bu ne dalay engagé nga jël ko war cee tënku waaye kenn du ko gaaral ci leneen lu dul alquranu karim ibnu qayim rahimahullah waxam jooju laa tëje nee na amul kenn koo xam day nekk ci ngir mu wuteeg sunna lu dul soo ko waxee sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu naan la sa xadis bi daa wuuteeg umumu aaya bi wala itlaaqul aaya bi maanaam bi daa wuuteeg eh, zahirul quranu karim nee na moo tax raafida dañoo sóobu yoon woowu bari na sunna yu bari yu sax yoo xam ne mutawaatir la ñu delloo ko bokk na ci yooyu misaal bi mu joxe yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñun yonente yi duñ ñu donn lu ñu bàyyi ab sarax la ñoom ñu ne xadis boobu wérul lu tax wérul dafa wuuteeg yusikumullahu fi awlaadikum li zakari mithlu hadhil te xam nga ne aaya boobu am mais xadis bi xaas la na aljahmiya delloo xadis yu yu saxal melokaanu suñu borom tabaraka wa taala nee na ñooy daa wuuteeg zahiru aaya bi te mooy laysa kamithlihi shay'un wa samiul basir وانيم صدق نقول أقل نبوه سلم البصير مم إثبات صفلا خوارج دلوا حديث بري وحني الله ينتبه عليه الصلاة والسلام أدنى يباهني دنيا رمو تنيجا هم نيودون ويتل يالدون أي جلدت مم بون جاريس جاريس سوار دنيا جنات نيو أجنا دنيا كورات دلوا كان هندفع وتك أي بريش الخالي تكواته تبيرج سوار الجهمية حديث نيو تي جلدت نبو الله جدنا جسون برم تبارك وتعالى تأجنا لمي بري بري لمي وير وير دنيا كودلوا نحن هندفع وتك ظاهر القرآن lan mooy zaahiru quran nee nañ suñu borom nee na laa tudrikul absaar alqadariya a ahadis yi wax ci dogale suñu borom yi tabaaraka wa taala ñu delloo ko sukkandikoo ko nee nañ ci zaahiru quran ak mboolem kuréel yi sosuwaat seen ginnaaw kuréel bu ne su gisee ab sunna boo xam ni wuute naag la mu jàpp ak la mu gëm moom mënta gëstu ndax xam na ni wér na wala wéru ndax loolu du seen domaine lu mu wax mooy xadis bi daal daa wuuteeg alquran kon duñ ko jël kon ñoon ñëpp daal la leen mooy lan ñom dañu tabax seen wax jooju ñaari muqaddima ñaari introduction yo xamni ben bu ci nek fasid la batil la bi jiit moy dañu wax ni ahadith yo nga xamni werna bayiko ci bàyyikoo ci yonent bi saasam dafa wuuteeg alquran te loolu waxon nañ sank ni hadith bu wér bu bayiko ci sallallahu alayhi wasallam di wuuteeg alquran loolu amul bal ñen ñi sax dañu dem ba ag fit ba am ci fit lo xamni dañuy delo hadith yo xamni ni xeet yépp dëppoo ni werna te moy ñëw ci bukhari ak muslim